bisu màggal bii ñu bisu màggal bii ñu màggal mooy bis boobu bi mu fa jógee moo waxoon ne bu dikkatee nañ ko def ni tabaski waaye nañ ko màggal bu baax a baax a baax rek ndax bu fekkoon di bu fekkoon bis boobu amuloon ba ma def la ne def dem boobu ma dem kon sa sa mbir ñi nga xam ne yéen maa yaakaar du du ngeen am du ngeen mu noonu te nag jëkk nag loolu yi mu wax fekk na yoon wu nekk ak diine ji nekk bu fekkee ji ko la am na bis la seeres loolu moo di bi euh, bis bi Tabaski bis boo xam ne Seydina Ibrahima moom la suñu borom digaloon boo ndigal loo xam ne da ko wax ne ko na nga rendi sa doom ba mu woo doom wax ko ko mu déggu ci ak moom lool mu dal di fab ak ko koy ak koy euh, euh, murgatiya teg ko fi teg ci wetam fa paaka ba jëme jëme ko ca baat ba suñu borom dala yebal Seydina ko gaaw la gaaw gaaw mu dal leen di xaaf mu bay ko ci àjjana ne ko na leen di ko kii mu ne ko mu leen di ko ba fàkk ba daw rek wër waa ji jóg dem fee Ismaïla xam nga ma leen boobu li bis loolu bis tabaski bi ñuy def loolu la ko waral foofu la jógee suñu bis magal bii tam moom bis boobu sëñ dem gi mu dem ci muy li mu bëggoon moom la wax ne moom itam seen bés yi yéen ndax li ma bëgg li ma bëgg ngi nekk li ngeen bëgg ci man ba di ko wut si ci man fekkoon bés boobu amu kon sama na yàqu te kon ngeen am ngeen su bu dikkee ko demee def ni tabaski rek ci fonk ko ñu ci des itam ci ci xale yi jeexe yeeg nang nangam waaw sosi waaye yëpp di feete bésu rek ku nekk am nga bés da ko mat nekk am na bés